mbokki dal leen ak jàmm ñu ñëw yéen ci mbiri di Diack Diouf mi fi nekkoon manager waykat bii di Viviane te ñu ko loxo ci weer yi ñu génn ci mbiri coowal trafic de foo visa juróom benn weer ginnaaw biñ ko tegee woon loxo mu def ko foofee ca prison bu Rebeuss di Diack Diouf nekkoon manager Viviane bàyyi nañ ko mu daal di am liberté provisoire ba daal di ñibbi ca këram ginnaaw rek bi nga xamante ni yoon tegoon na ko loxo ci coowal faux visa bi xibaar nag ki ko siwal moo di maître Cissé ci suñuy natango yi E-Media SN ñu dat koy placé woon rek su mandat de dépôt niki le 12 février 2020 bi ñu génn par le juge du huitième cabinet Mamadou Seck Djidia Diouf demande de liberté provisoire yi nga xamante ni déposé woon na ko yooyu yëpp la ko yoon lànkaloon waaye nag ginnaaw rek bi nga xamante ni libéré nañ natangoom bi mu nekk ndawoon foofee ca prison di Petit Mbay ca la rek daal di demandé wat beneen demande de liberté provisoire bi yoon nag localité daat koy bàyyi mu ñibbi këram Djidiack Diouf nag ak Alioune Petit Mbaye liñ leen doon toppee moo association de malfaiteurs trafic de migrants faux et usage de faux ak falsification document administratif xanaa rek ñu koy ñaanal une bonne réinsertion te di espérer rek digganteem ak Viviane Ndour dara du ci ñaaw ba mën a dellu jiwaat ca ay activité am jërë ngeen jëf fii la ñuy yam ak yéen di leen dig daje ba beneen yoon